<coughs> baal ñi nga xamante ni ñuy suivre ñëpp <coughs> ci sama xalaat TV. Mm-hmm. di nuyu mbokk internet yëpp ñu nekk Europe ak Amérique ak ak fépp daal ñu nekk bitim réew ak ñu nekk ci biir réew mi yëpp ñu ngi nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn. ñi mm-hmm. euh, ko waxee rek goyaab la ñuy waxtaane comme ni nga ko expliqué ñu koy wax goyaab. Mm-hmm. Euh, donc day doom doom bi rek la ñuy waxtaane ndax beneen yoon ñu ñëw ci xob yi yooyu. waaw ndax euh, lépp am njariñ mhm. mais doom bi daal spécial ci lañuy ñuy waxtaan bi fruit bi waaw mhm. donc bu ko defee nag pap mhm. goyaab moom dafa nekk lu bëri njëriñ dafa naa ni comme niñ koy waxee rek <clears throat> am na ñoo xam ni développé nañ ko ba def ci jus de am na <coughs> kon déjà première njariñ bi rek mu ngi noonu waaw man nag nag Pape nag xam naa ni njóobeen yi dañ wax dara tey moom <laughs> <laughs> dinaa leen may lu wax mais nag jus jus yi ñëwee naan yëpp moom. Mhm. Garaaf moom ci daaxal franchement. Mhm, waaw Garaaf ak mango peut moom moom franchement. Mhm. moom moom ci daaxal moom Garaaf moom macha allah. Mhm. donc bu ko defee nag euh, jus boobu euh, tey am na ñoo xam dañ koy exploiter. Mhm. di ci defar euh, boison comme noonu rek quoi. Mhm. surtout canadi xam nga am na ci. donc kon plante la boo xam ne bëri na njëriñ. déjà loolu rek buñ exploité woon. dëgg la c'est autre chose. donc bu ko defee moom nag dafa bëri njëriñ ci doom bi. donc plante boo xamante ni tey bu fekkee nit ki xëy na soj na. di conseil di ko lekk lu bari. baax na si baax na ci. baax na doom bi quoi di lekk goyaab bu bari mhm. ñi nga xamante ni tamit dañuy am euh, problème hypertension mhm. bu fekkee mën nañuy jël goyaab mhm. di ko lekk de temps en temps moom it euh, baax na ci wala ñi nga xam ne dañu amee biiru tañ biiru tañ mooy dysenterie amibienne moom bu ñu amee euh, loolu bu leen dalee fekkee mën nañoo am bu doom bi ko di ko lekk tamit baax na baax na ci ñoom di ko consommé waaw ñi nga xam ne dañuy am problème mu intestin intestinal c'est-à-dire ay problème surtout saana yu demee noonu mhm. su boobaa dañuy mën nañuy lekk goyaab mais tamit boobaa dañuy lekkaale doom bi bu baax a baax mhm. wala ñi nga xam ne ñu am problème mu problème mu mhm. euh, santé buccale maanaam ci wàllu gémmiñ ci wàllu gémmiñ ay mbuuraan ak yu mel waaw yu mel noonu donc bu ñuy conserver eh, da da baax na fruit bi parce que fruit bi dafa bëri vitamine C donc bu ko defee bu ko. concerné waaw da ciy gémmiñ yuy xeeñ waaw yooyu façon yi yëpp mën na ko. Mhm. mën na koy saafara mhm. ak yi nga xam ne ñu am ay sofeek yu demee waaw mhm. di ko conserver lu bari baax ñi nga xam ne am problème mu cholestérol aussi. cholestérol bu bari. donc di conserver di lekk goyaab et boobaa dañ koy lekk lu bari nag. moom it baax na si ñoom. ñu bëgg régime daal maanaam. ñu bëgg <laughs> ñu bëgg régime baax na si ñoom. même ñi xam ne ñoo amee diabète. ñi mm-hmm. nga am jabet mën nañuy jël euh, kii. goyave goyave di ko lekk du du leen wàññi dara baax na si ñoom. parfois ñi nga xam ne ñu am maux de gorge. Mm-hmm. nga xam ne seen baat bi day kii. Mm-hmm. xajam di métti. waaw day métti wala yu demee noonu. donc bu ñu amee goyave di ko euh, lekk baax na ci baax na si ñoom. bu ko defee ñi nga xam ne dañu am problème ay kii nu mu tuddati euh, digestion. xam ne bu ñu lekkee du du rees. yu demee noonu moom it bu ñu amee fruit bi. Mhm. di ko lekk baax na ci ñoom. Mhm. day gaaw a reesal day gaaw a reesal waaw ñi nga xam tamit dañoo am problème mu fertilité. Mhm. fertilité masculine wala euh, euh, masculine wala féminin maanaam ji góor ñi nga xam ne wala jigéen. ñi nga xam ne daal ni ñu war a juree jure wuñ ko. maanaam seen jur dafa soriantoo. wala boog ñu am doom wala yu demee noonu. donc bu ñuy faral di lekk euh, goyaab bu bari. mën na yàlla mën na ci def saafara. mën na faj loolu mën na faj loolu waaw baax na ci waaw. bu fekkente ne tamit nit ki day sëqat mhm. sëqat bu bari mhm. mën nay wut goyaaf di ko di ko lekk dina ci baax mhm. ñi nga xam tamit dañu am problème mu jigéen ñi nga xam ne seen règle du day am problème donc ñoom bu ñu amee goyaab boobu di ko lekk euh, doom bi baax na ci. macha allah waaw <laughs> moom. waaw donc am na am na njëriñ. donc yooyu daal bokk na ci njëriñ yi nga xam ni moom. doom bi doom bi làmboo na ko. bu ko defee nag <clears throat> beneen yoon ñu ñëwaat ci xob yi. moom it waaw dinañ ci ñëw ci plante ci plante bi waaw bu ñëwaatee ci plante incha allah dinañ développé waat yooyu yëpp quoi mhm. mais njariñi daal moom ci doom yi mhm. yooyu yëpp baax na ci pap mën na ko saafara d'accord yi nga wax yëpp nag mooy guyaab bu ñor xomm bi ñuy lekk ñor waa kay bu baax waaw nga day am doom bu vert bu dëgër sax bu ñoragul da kay dëgër non bu ñor la ñuy wax <laughs> bu ñor xomm bi nag day day nooy day nooy waaw bu ñorul moom day day dëgër waaw day dëgër moom xam naa ko garab dëgër dafa am fu ma dëkkoon yëmbal hmm. am ay tool yu am foofu Eh, garab voyage amoon garab bi amoon na fa. Mm-hmm. voilà am na lu ma seetlu. Mm-hmm. ñiy jaay fruit ci dëkk bi. Mm-hmm. bariwul loo leen di romb ñuy jaay voyage. waaw peut-être sànni ñeeri daal xam naa. ku fa dem ah, moom mooy tane foofu moom fruit boo bëgg <laughs> dañ ko fa yem. mais ñiy jaay nii ci ci ci biir dëkk bi. xaw ma nag nit ñi ñoo ko bëggul bu baax. moo tax ñoom te nit lu ñuy. consommer yooyu lépp lu ñuy consommer parce duñ ko manqué. mais goyaab moom c'est très rare nga gis jaay ko fruit bu koy jaay. donc remarqué naa waaw mën na nekk nag mais xam nga li ma ci jàpp bon euh, du xam-xam nag mhm. xalaat la rek. Mhm. tamit nit ki di wax na ngay wax lu ah. <laughs> leer la teguma ko ci xam-xam ci xalaat rek sama xalaat rek laa ko teg mën naa ma juum. Mhm. xam nga comme que dafa am plante yoo xam ne daanaka comme que bàyyi ñu leen. du am ci quantité day bari. du du bari du bari. comme que comme xam nga gisoo fii kuy bayee goyaab daanaka. toolu goyaab kese kese. waaw waaw waaw ko waaw kay ay naa ak yooyu. mu gis ko ci am tool tool du am. mosuma ko dégg waaw kay léegi looloo tax nag muy xaw a jafe. nga bu fekkoon ay kër ak ay kër yoo xam ne am benn benn. waaw tool bu ne lëmm hectare boo xam ne. waaw ay hectare waaw. loolu gisul ko léegi nag loolu moo tax nag muy xaw a jafe quoi muy muy raar nga tey bu doon xaal. Mhm. nga gis ko bay quatre ectare wala dix hectares xaal kon day bay day gis nga. orange noonu orange noonu mango noonu limon noonu am na ay tool. donc bu ko defee nag yooyu. ay goyave ak grenade dafa nekk ci tool yoo xam ne ay benn benn lay nekk nga ñëw ci benn tool fekk fa mhm. ñaar wala ñett. donc ça mérite réflexion oh, oh, de loolu. waaw ça mérite réflexion. bien sûr te pourtant yooyu. ko fi en quantité quoi. waaw kay waaw te pourtant yooyu day faj da dañ cee waroon di. bay limon léeg-léeg nga romb foo xam ne day ëpp ay dix hectares ñu def ko limon kese. waaw. ah man na maa ngi ciy réfléchir moom wax dëgg yàlla. su ma papaye noonu am toolam papaye dong la ñuy béy. dafa am nag yoo xamante ne dañoo am njëriñ mën nañoo faj. léegi yooyu dañ ci waroon di ko di ko bay am ci ay hectares. ñi mën ko utiliser même bu dul sax mais li faj quoi. c'est vrai faj moo ñu manqué. waaw ah, mais yooyu yëpp dañ ci sax tool ak yooyu sax bay ko. waaw waaw dafa am garab yoo xam yaa naan produit ko sa bopp waaw fayal ko sa bopp dinañ ko def incha allah parce que garab goo xam ne heure boo ko bëggee da nga a dem Casamance wala nga bëgg dem Saloum waaw waaw te munoo semaine bu ne nga dem Casamance wala Saloum munoo mënta nekk te doo ci wóolu kenn mu utal la ko parce que peut dafa am garab yoo xam ni nekkul dem rek witt mm, dem waaw nekkul dem witt ay xob nekkul dem gas reen <laughs> eh. am na ay secret yooyu eh, soo ko eh. gas reen bi keroog benn waaye dafa benn waaye am naa garab googu mas la ko expliqué mhm. am na benn garab boo xam ne ci wàllu wërsëg lay dox nag wàllu wërsëg lay dox mas naa la ko expliqué ko jaayee lan war naa la cent laa ko jaay nga am kudd bi sax ëpp na cent mille parce que xam nga lu ëpp téeméeri garab mhm. nga war ko wut ci benn bis waaw waaw yaa ma ci benn bis nga ko war a wut loolu yombul loolu te yàlla yow kese yaa ko mën defal sa bopp wóor la waaw lay demee te benn bis nga koy war a wut benn bis ci téeméeri garab ak nangam yëpp benn bis nga koy xas. benn bis waaw. soo koy weer benn jour nga koy weer benn jour lay gis naaj amul mhm. euh, ba léegi tam xam nga tam am na lu am solo bu ñu waxtaanee benn garab comme nii su fekkee nit ki soxla na ko te gisul ñu koy jaay mu dem jëndi ko si ñiy jaay peut-être jëmbal yi. jëmbal yi voilà. su dee këram am na ëtt am na espace. Mhm. mu jëmbat ko ci kërëm bala muy am at ñaari at ñet at xëy mu commencé di produire produire mu am gayaabu bu bokk bu dé garab bu ñu wax rek te xam garab du nek garab yi ngand yooyu mën hmm. nga ko dem ni nga jëmbat ko sa kër hmm. voilà bu fekkee am am na kër yo xam ne am na jaay am espace espace waaw té des fois dara fa dem village sama village yi ay jamono ci ginnaw sama nijaay bi gënul àdduna mais kër ga digg kër ga benn garab fa amoon garab bu sakal du garab bu fruit quoi day garab bu ay xom la rek garab garabu ker yooyu hmm. ñu dag ko fa tombe ñu dag ko kii waxaatagul quoi amaatagul ay xob waaw jour moom mi ngi tàng tàng boo xam ne kër gi ëtt bi mat na xanaa benn hectare. <laughs> kii wër ko quoi. comme village noonu. waaw duñ fa def dara. dégg kër benn garab nekk bi safal la saf boo xam ne ñëpp dañoo bëgg nekk ci biir bâtiment yi. mais yàgg daal man xoolal fii rek. fii nga xam ni maanaam ndox mi ngi fi di ñu ndox. am am na donte robinet yi egg na fa mais am nañ seen teenu bopp boo xam ni. bu ñu mm-hmm. defee pompe am nañ ndox. am nañ espace. ay jeunes ñu ngi fi. Mhm. ñu bàyyi àll bi nii jëm jëm fi benn kër. bu nawet jotee daal ñu dem jàpp seen i surga utu surga fay leen trois mois ñu bàyyi leen fi gerte wala ñebe. bu jeexee ñu bàyyi waat noonu àll. àll bu déwén waaw te boo ñëwoon kat ni leen dama fay soxla def benn projet fii damay jëmbat ñun loolu fi am. fi am waaw da nga da bëgg a jógee Ndakaaru ñëw nangu suñu. te liggéeyuñ ko te liggéeyuñ ko. loolu daal metti ma trop te village yi wér dañ fay def dem fekk ñu def benn li des bepp du am garab. jam waaw. te loolu baaxul. loolu nañ ko defar or na ko dafa ko. rafa waaye dekk bi tang jeen lay def te bu fesson ay garab day féex. ah lol dal met na ma torom man dekk bi maa ngi maa garab. même Dakar gi legi mbeddi bo fi jaar nga suñu koñ bi do fi gis ben garab bu ben nekk ci mais jar na di wax ci video yi nak parce que am na ñoo xam dinañ ci commencé garab bi nit ñi dal dañ ko négliger waaw dañ ko négliger waaw dañ koy day day fexal dekk day dundal dekk day dundal dekk waaw day produire oxygène. waaw day xëcc taw. day xëcc taw nawet bi day ñëw. waaw day taw boo gisee Casamance ni la. garab yu bari la c'est mhm. ñu fexewoon ay garab taxaw fa ba mat lu mat léegi ñuy wax forêt Sahara. <laughs> waaw <laughs> léegi. ndeysaan ndeysaan waaw daal ah, professeur kon ñu bàyyi la nga tàggatoo ñu jox di yi rendez-vous ba semaine prochaine. macha ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen ñaanal rek comme li ñu fi wax lépp yàlla def ko muy. Euh, wërsëg nekk tuyaaba mu wusaare ko ci Sénégal gi yëpp waaw bu ko defee nag comme noonu la rek pap faj moom mhm. parfois dafa am loo xam dafa jafe ki ci nekkul du ko xam saa mhm. nit wax la garab euh, nga naan dafa chair nangam nangam fekk lam koy amee sax moom bu doon lool rek mhm. bu loolu rek moo ko fa bàyyi man mën naa ko fa bàyyi man projet yi ma am pap moo moo xaalis faj bi fuuf comprendre xam naa dara <laughs> <laughs> a wax ci ay vidéo luñ mën a wax ci vidéo bu doon xaalis rek ci yooyu laa leen concentré wu bàyyi faj bi mais amour bëggeel moo fa bàyyi. waaw xam nga ko ba pare te bëgg-bëgg. bëgg-bëgg waaw waaw kay loolu la. mais waaw kay mais am naa projet yoo bu ko développé woon. Hmm. bu doon xaalis laay wut foofu laay concentré wu ji. dëgg la donc noonu la noonu la demee quoi hmm. donc yàlla baax na. Hmm, yal na yàlla dolli sutura. amiin dañuy feebar ñëpp yal na leen yàlla saafara ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw loolu la ci am solo sa ku feebar doo sa jaamu yàlla day sooxe. Hmm, waaw kay mu ngi ku wér nag moom. moo tax ku wér nag war ngay góorgóorlu si jaamu yàlla yàlla waaw. voilà hmm. parce que boo demee Almeria dañoo fa nekk amatuñ benn chance pour ñëwaat. di jaamu. ñoom moom ak seen pare na ci arrêté nañ fi ñu doon noté seen affaire arrêté na moo xam lu ñu leen mën ci noteel mais arrêté na ñun nag suñuy fi ñuy noteel loolu nañ ci bàyyi xel bu baax Assalamu alaikum warahmatullah.